jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, rajo réew mi FM 97.5 Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi ñu daal di dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi comme ni ñu koy baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu tey nag euh, ñoo ngi dalal ki nga xam ne mooy Go Faye moom nag moo jiitee wala mooy coordinateur mouvement bi nga xam ne mooy réaction. mu nekk euh, mouvement boo xamante ni nag euh, mouvement national la euh, moom muy politique base politique am nekk fi nga xam ne nag moom mooy Parcelles Assainies ñu fas yéene waxtaanee lu jëm ci wàllum élection locale yi ak lu soxal wàllum euh, redécoupage administratif bi nga xamante ni tey euh, président Macky Sall su mën a ko ci région de Dakar tournée économique bi nga xam ne tey ji tamit euh, président Macky Sall ma ngi koy def ci Kaffrine loolu la ñuy waxtaanee ak yeneen ponk yoo xamante ni tey aju na si Go réew mi FM ma ngi lay nuyu. waaw Abdou Khad ma ngi lay nuyu d'abord di nuyu waa téléspectateur mi FM yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci kër gi. di nuyu waa Sénégal waa Dakar mais particulièrement waa Parcelles Assainies ak waa mouvement réaction que je salue au passage. Euh, Go Faye yow yaa jiite euh, euh, mm-hmm. mouvement réaction. mouvement réaction kañ ngeen ko taxawal kañ ngeen ko sos ak tamit ndax mouvement la boo xam ne mos naa dem ci ay élections ndax Sénégal dañ fi gis ay mouvement yu baree bari yoo xam ne mosuñu dem élection. mouvement réaction kañ ngeen ko taxawal ak si yan élection la mos a participer. merci si question bi ah, je pense que mouvement réaction ñu ngi ko créé en 2012. Euh, bi nga xamante ne euh, dañu toogoon gis ne ki nga xamante ne moom lañ tànnoon mu nekk suñu maire depuis 2009 euh, defu fa li nga xamante ne moom la digg woon ak askan bi muy le maire Moussa Sy ñu gis ne sa gestion c'est plus de la malgouvernance c'est pas une gestion inclusive te gis nañ ne équipe municipale bi fa nekk amuñu compétence pour réaliser des projet yi nga xamante ne moom la ñu fa tegee donc 2012 euh, euh, ma jóg ak samay xarit ñu ne ok dañuy conscientiser à l'origine c'était un mouvement de conscientisation et d'éveil des consciences pour wane ne ndaw ñi ne il est grand temps que ñu fexe ba de sorte que sur biir conseil municipal bi ndaw ñi nga xam ne am di ko jaay di privé bi ñoo dugg ci conseil a apporter seen lañ ko woon donc pour euh, revenir ci élection yi nga wax 2014 deux ans après ñu dem élection locale bokk ñu woon benn coalition nag mais boobu dañu doon xool exactement est-ce que moi le leader j'avais le discours qui pouvait porter qui pouvait atteindre la jeunesse mais aussi est-ce que amoon naa leadership bi nga xamante ne tey je pouvais prétendre à être maire des Parcelles Assainies parce que boobu ay ay gënoon nañu nekk xale quoi mais bu ñu demee élection yi euh, sans aucune coalition ak boobu aussi ñun ci ci réaction. si réaction euh, ñi jokkaloon yëpp ay ay professionnels lañ di liggéey temps bi may ñu ko woon mais euh, julli si toll ni 1000 personnes voté leen ñu ñëwoon ndeysaan si kanamu fa Demba Dia parce que boo jiitoo Demba Dia da nga koy ndamoo parce que dafa nekkoon koo xamante ne 2009 euh, am na sax ñu naan dafa gañoon élection am nañ conseil effectivement. Mm. donc bu ñu jógee si 2014 aussi ñu continuer suñu yoon parce que politique nekkul woon suñu métier. mais ñu kon ne suñu éveil des consciences à travers des activités dans si domaine de compétence mairie yëpp muy santé éducation sport environnement ainsi de suite ba loolu tax na en 2016 aussi avant boobu am na élection référendaire référendum bi 15 euh, points yi ñu gisoon ne parce que bi ñuy dem élection dañu mujjoon ab récépissé parce que comme tu dis am na ay waxuma mouvement mais ay parti politique yoo xam ne këyit rek la ñu am mosuñu participer benn élection danaa été ñu daw ab récépissé pour participer ce que je trouvais injuste parce que ñun en tant que citoyen am nañ droit euh, bu ñu bëggee nekk candidat am ab récépissé waaw mais mais est-ce que go mos ngeen a dem pour jéem a récépissé pour réaction bi non nous on préfère la posture de mouvement citoyen parce que euh, day tax euh, ñi nga xam xam nga parti politique question d'idéologie la question de yenn ak yenn on a cette idéologie là mais bëgguñu ko formaliser en tant que parti politique parce que dañu gis ne y a une révolution bu am au niveau international ñu ne one est à l'heure de la vision et du leadership nekkatuñu say idéologie nga xamante ne dañ koy importer de l'Occident ñu suñu idéologie bi nga xamante ne moom la suñu mouvement di incarner c'est basé sur nos réalités ak suñuy valeurs ak suñuy principes tu comprends nga xamante ne moom la ñu yare ak sunu diine sunuy tarixa yi je que li ñuy incarné rek mooy leadership ak vision euh, si loolu la ñu dem mais suñu dem jéem wut parti politique quand même mais on a un récépissé de mouvement citoyen que parti politique ak mouvement citoyen lépp c'est des associations de personnes léegi nag option bi mooy ñun dañu jëm option rester en tant que mouvement citoyen mais pas en tant que parti politique bi ñu jógee foofu bu ñu jógee ci référendum bi ñu dem ci élection législative nekkoon tête de liste département de Dakar ci toujours pour être, pour dans, toujours dans la même longueur d'onde ak suñuy euh, en accord avec nos principes. Euh, même logique daal. même effectivement euh, coalition beneen baat bi ma jiite département de Dakar bi. bi demee aussi notre coalition si Dakar amoon nañu fi à peu près 2000 xaw ma 3000 voix quelque chose comme ça parce que candidat yi dafa bëri woon liste yi élection législative je rappelle. bi ñu jógee foofu deux ans après c' était en 2017 deux ans après c' était les président bi. au Parcelles Assainies euh, ak euh, yeneen euh, entité ak waa PASTEF bi ñu jógee foofu am fa 15000 voix et puis gis nañ ne on a parce que de 2012 à 2019 on a eu beaucoup plus de reconnaissance et de considération ba taxaw position leader jeunesse au Parcelles Assainies on incarne le leadership jeune au Parcelles Assainies et puis ndaw yëpp nangul nañ ñu ko. donc loolu la élection yi ñu jot mais bi nga bokkee ci coalition Sonko président. 2019 jàll Sonko am 15 pour cent est-ce que amu woon déception wala amuloon regret ci ànd bi nga ànd ak coalition Sonko président. Euh, bon en fait suñu objectif moo doon ñu tànn président Ousmane Sonko def ko président du Sénégal effectivement euh, on n'a pas réussi notre mission mais on était une coalition très très jeune donc je pense que ndaw moom du yàkkamti quoi. Euh, mais au niveau local bi ñu ko analysé au niveau local mooy euh, on a eu 15 000 voix ci élection yi. jël deuxième derrière la grande coalition bi nga xamante ne moom mooy le régime présidentiel donc je pense que euh, test grandeur nature la su si ñun et puis c'est pas c'est considérable 15 000 donc suñu coalition boo xamante ne peut-être man rek maa fa nekkoon koo xamante ne siiw nga ou bien dem nga mus nga participer ay élection nga am 15 000 voix c'est pas c'est pas mal et puis boo xoolee Parcelles Assainies bu ñu boolee euh, électorat opposition bi yëpp yeneen parti yi ñu ñoo raw euh, le régime euh, au présidentiel donc ce qui fait que le pari de fédérer toute l'opposition autour de quelque chose, naturellement, <laughs> euh, le régime présidentiel va perdre au passage de lors des prochaines élections. Locales. local wala. d'accord législatif. d'accord léegi euh, Go Faye dinañu ci dikkaat ci élection locale yi comme ni nga ko waxee sànq su dee am na benn organisation bu ngeen def yéen opposition bi nga xam ne yéen nekk euh, parcelle Assainies fas yéene jàmmaarloo ak euh, régime présidentiel moo xam Moussa Sy lay doon te parcelle tamit enjeu yi bëri na foofu. Euh, dinañu si daal dikk léegi euh, ñu ñëw ci li nga xamante ni tey mooy actualité bi gën a gën a fresh mooy président Macky Sall dafay def euh, ma ngi si benn tournée économique tey ji samedi ji dem Kaffrine dina dem ay Tambac yu mel noonu inauguré li nga xam ne mooy ay ay hôpital structure de santé ak yeneen liggéey yoo xamante ni def na ko fa yow lan moo ci saxalaat ah je pense que c'est quelque chose de bien un président dafa war a am proximité ak euh, ak ses ses populations bien que da am ay ministres am ay députés yoo xam si gox goxaan mais quelquefois il est bien nga dem xoolal sa bopp exactement réalisation yi fu ñu toll et puis euh, saafonteeg nit ñi xam li ñuy dund comme ça nga mën si apporter ay solutions je n'ai aucun problème par rapport à cette tournée économique là. Euh, mais fi Sénégal toll dafa am benn économiste bu ci mel ni mel ni sa baabu ak benn analyse politique euh, Mamadou Sy Albert ñoom seen gis-gis mooy tournée économique bi yàq xaalis la. ndax euh, fi Sénégal toll te président Macky Sall yàgg na def ay tournée économique yoo xam ne teewul ba léegi Sénégalais yi ñoo ngi wéy di am ay jafe-jafe ñu jàpp ne carburant beeg hôtel yi ñuy luyeeg ñi leen di topp ak lañ xaalis boobu yépp mën nañ ko jël injecté ko ci gox bu nekk moo xam hôpital lañ fay def wala leneen leneen ñi jàpp ne yàq xaalis la ak fi réew mi toll ak jafe-jafe yi euh, ndax yéen a bokk gis-gis wala bokk leen gis-gis. waaw en fait boo déggee ma ne je n'ai la tournée économique je parle du du un président dafa war a tourner di xam exactement dëkk bi lu fi ne d' accord maintenant sur la forme bu fekkee dañuy def bamboula di ànd ak ay délégation di jël ay hôtel di c'est du gaspillage loolu moom kenn mënu si d' accord d' mais je parle du fond l'essence de la tournée économique mooy dem ci proximité yi peut-être xool structure yi ñu def ndax di nga xamaale dëkk bu am nit ñi jox la directement seen i aspiration ak li ñu bëgg ci gox bi lii ñu koy jaarale ci keneen dans ce cadre on peut le saluer mais euh, par rapport ak gaspillage beeg yooyu moom vraiment kenn mënu ci d'accord et puis je salue monsieur Maïssa Bassou Babou au passage moom Université Cheikh Anta Diop il a professeur jërëjëf euh, Go Faye mbokk yi moom la ñu invité ci seen émission pencum réew mi beneen problème boo xamante ni wala beneen polémique boo xam ne fan yi ñu génn euh, am na fi jëm ci wàllum euh, avion présidentiel bi coow li bari na ci société civile bi ak yenn ci ay politique ŋàññi nañ président Macky Sall ak avion bi mu jënd ndax ñenn ñi jàpp nañ ne fi Sénégal toll. Euh, ak bor yi nga xamante ni barki Demba Ndiaye la dem France doon ko plaider pour Afrique pour ñu baal ñu bor yi ñenn ñi jàpp ne woon du woon moment bi yow lan moo ci saxalaat en tant que responsable politique. je parler en tant que responsable politique mais aussi en tant que quelqu'un qui a fait l'économie xam analyse et politique sama option bay am sama maîtrise loolu la kon exactement une économie euh, du extérieur moom mooy déterminer sa économie lan la je pense que euh, tey bu nekkee la France dafa initier. def wara euh, un sommet économique pour redresser les économies africaines c'est c'est c'est une honte day mel ni amuñu suñu président yi nga xam ne mën nañ jëlee initiative dajaloo a priori au niveau de l'Afrique identifier suñu véritable problématique jëm si apporter ay solution après nag jëm a wut ay partenaires à l'extérieur mais bu fekkee tubaab yi ñoom ñoo ñuy tànnal kañ la ñu war a daje pour trouver des solutions à nos à nos économies loolu dañuy nekk ci système euh, esclavagisme wala wala wala colonial ba léegi mais sous une forme d'accord donc euh, képp kuy économiste xam nga ne une économie doit être indépendante et souveraine waxatuma la économie africaine donc euh, bu nekkee dañuy def analyse bi nga xamante ne France mënuñu wutal solution France day défendre ay intérêt en Afrique pour wax la rek France tey buy leb ah au nom de day dem porte sunu sunu bor te France moo ëpp bor Afrique yëpp boo ko boolee parce que la dette de la France tourne autour de 2500 milliards d'euros alors que la dette du Sénégal Euh, de l' Afrique autant pour moi 52 pays Afrique yëpp boo dajalee dette bor bi ñu am vis-à-vis des institutions internationales ainsi de suite FMI Banque mondiale ainsi de suite ak euh, yeneen pays étrangers yi nga xam ne c'est des partenaires ça tourne autour de 800 800 euh, milliards d'accord je parle 800 000 800 800 milliards milliards d'euros. 800 mm-hmm, milliards d'euros alors que France mu ngi ci 2000 milliards d'euros. Mm-hmm. Afrique mi ngi yoreel àdduna bi cent milliards d'euros France mu ngi dépassé 2000 milliards. Mm-hmm. juste pour dire que ne le taux d'endettement bi ñuy wax ci France moo ëpp fukki junni yoon Afrique maintenant il faut que les gens comprennent que il faut que les gens comprennent que euh, euh, stratégie la France dafa bëgg am mais sur les économies africaines surtout sur ces euh, les économies yi nga xamante ne euh, seen ancienne colonie lañ. parce que tey si la France perd la main sur des économies comme la Côte d'Ivoire le Sénégal ak yeneen dëkk yi ay Tchad ak yooyu mais la fi c'est fini pour la France France amul yenn ressources yi par rapport ak suñuy sous-sol ak suñuy. Euh, d'accord mais mais Go Faye euh, ndaje moom nga wax fa la président Macky Sall di sàkkoo ñu baal ñu bor ñi bor yi xëy jënd avion euh, ñu bari jàpp ne loolu dafa am benn incohérence waaw le le le le par rapport à l'achat de l'avion en fait man je pense que euh, c'est pas sorti en cash et puis c'est un projet qui a duré quand même xam nga aussi ba quand on s'oppose euh, man du ma opposé wu pour opposé wu kese d'accord tey euh, je suis pas dans l'armée xawuma situation avion présidentielle fu mu toll ba ñoom ñu gis ni seen priorité ñoom jëndi avion li ma mën a xam mooy par rapport à, la volonté du président de la République pour ñu effacer la dette man je suis parfaitement d'accord l'Afrique ne doit rien du tout à l'Occident parce que bu ñu xoolee dans l'histoire c'est pas pour ñuy apitoyer sur sur notre tey Afrique bu fekkee dañuy dépendre ci Occident c'est parce que à un moment donné l'Occident a pillé nos ressources tey bu ñu xool kan moo yoral kan Occident c'est-à-dire quand je parle de l'Occident je parle de la France c'est ce qui ont été des des ay bor maintenant dans leur politique étrangère il faut que ñu continuer teg même mise di ñu lebal xaalis yoo xamante ne ñoom ñooy orienté fi lebal dugal ko fii bu ko dugal fii génnee ko fii au lio que ñu bàyyi suñu économistes yi ñi nga xamante ne dans les mêmes écoles lañu jàngee que seen dirigeants yi ñu xool exactement le besoin ak suñu suñu stratégie de développement nga xamante ne dañ def suñuy prioriser suñuy dépense mais il faut qu'on prenne notre indépendance sur euh, l'Occident bu ñu ñëwee si franc CFA bi aussi France tey il peut pas permettre de génn ci suñu franc CFA bien que moom mooy suñu suñu suñu euh, suñu garantie au niveau euh, voilà de de de la banque mondiale ainsi de suite France mooy l'euro moom mooy garantie suñu monnaie de tax suñu taux euh, de change bi nekk taux fixe par rapport ak dëkk yi nga xamante ne bokkuñu euh, si ñi nga xamante ne partenaire de la France comme la Guinée foofu seen monnaie bi day fluctuant alors que ñun on a un taux fixe maintenant par rapport ak éco bi sommet bi ñuy def nii il faut que souveraineté dëkk day jaar ci souveraineté monétaire dans l'histoire économique ak histoire wu euh, boo xoolee si dëkk yi nga xamante ne yëpp franc CFA la ñuy doxee ñoom ñoo nekk ci 15 derniers pays yi gën a pauvre en Afrique contrairement ak dëkk yi nga xamante ne seen indépendance euh, monétaire dañ ko xeex boo jëlee Maroc Tunisie Algérie euh, dëkk yooyu yëpp tey dañoo xeex seen ba am seen monnaie propre seen propre monnaie moom moo tax tey ñu mën a mm, maîtriser seen économie Euh, par rapport ak exactement seen monnaie et puis ñu def un modèle économique bi nga xam ne ça leur permet euh, de se hisser en termes de développement. D'accord. mais euh, Go Faye il faut ñu wax ci dinañ wax ci loolu noonu ndax yow il faut ñu wax ci avion bi ndax dégguma nga wax ci loo xam ne lu leer la. non en fait. waaw en fait tu sais il y a une différence entre l'achat de l'avion ak la relation qu'on a avec la France. Mm-hmm. non non non non non relation bi ñu am ak France. Euh, dina si ñëw ak France mi nga xamante ni tey moom lañ jàppee ne moom dafa ngar daajoo suñu économie ba pare noot ñu économiquement ak lu jëm ci wàllu ne africain bi nga xamante ni ci euh, forum bi ñu doon développé am na ñu ko fa proposé danañ ñëw ci loolu mais dama la wax rek na la avion bi jamono ji ko Macky Sall yi euh, di ko di ko wax ne moom la ñuy jënd avion dafa fekkoon fan stop rek ñuy sàkk ñu ñuy baal ay bor ak contexte bi Sénégal nekk ak jamonoy coronavirus bi nga xam ne réew yu bari dañu nërmeelu est-ce que moment bii la woon euh, Macky Sall di di di di jënd wala mu ñu annonce avion. moom laa wax avion bi bi ñu koy jënd du moment bii nii. selon li gouvernement bi wax. Ah, waaw d' man loolu laa jàpp. d' parce que dañu génn officiellement ne génnewuñu 60 milliards jënd avion bi nii nii nii. c' est à dire c' est un projet bi nga xam ça date de longtemps ñu commencé woon di ko fay par échéance muy doog a jeex fekkoon dañu génnee nii nii nii 60 milliards dem jënd avion bi je dirais que c' est pas du tout normal parce que on a d' autres santé et les priorités au Sénégal le sport amatuñu stade hôpitaux yi Covid 19 bi dafa wane toutes les économies du monde dañu war a changer de priorité. dem si santé bi ak euh, beneen modèle bu nga xamante ne ce sera axé sur d'autres choses d'accord prioritaire mais bu fekkee dañoo génnee 60 milliards nii nii nii nii jënd avion présidentiel pour le pour faire plaisir à certains mais loolu c'est de la gabegie c'est-à-dire c'est du gaspillage mais comme je ne pas les tenants et les aboutissants euh, euh je préfère ma ma wax ne bu nekkee xaalis cash lañ génnee c'est c'est du gaspillage total personne ne sera d'accord mais bu fekkee échange loo xamante ne fay nañ ko sur 10 ans sur sur ans avant situation bi di am mais je pense que je pense que c'est quelque chose de normal et puis man xaw ma ndax avion bu njëkk ba dafa panne euh, xaw ndax exactement par rapport ak euh, sud ak euh, comment état bu mu nekk mën na sécuriser sunu président parce que quoi qu'on puisse dire le président du Sénégal doit être en sécurité. d'accord mais mais mais Go xam nga état bi ñoom dañu génnee communiqué beneen bi si njëkk rek même ñoom su doon tey commandé nañ avion bi. bien avant 2018 rek comme ñoom ni ñu ko waxee bien vrai que sax am na ay xibaar yoo xam ne wax nañ ne état bi ñun li ñu wax ñoom du dëgg mais état bi tey ñoom bu ñuy tabax benn hôpital wala nangam ak nangam dinañ annoncé ne budget sangam ñoo ngi si tabax hôpital sangam wax loo mel noonu ndax avion bi lu ci mën di am ak lu ñu mën di wax xaalisu askan bi lañ ko jëndee te gisuñu ñu annoncé ñu woon. que ne état bu Sénégal kat ay pour ñu respecter rek sénégalais yi que ne Pointe Sarène dafa am problème dafa paan techniquement ñoo ngi commandé benn avion temps si xaalis la. ñoom bi ñu génnee seen communiqué dañu ne secret défense la moo tax waxuñu li nga xam ne mooy prix bi. Euh, ñu xëyaat démb gisaat ministre de des finances Abdoulaye Daouda Diallo joxe prix bi kon déjà kon moom violé na li nga xam ne mooy secret défense bi nga xam ne tey Omar Gueye ma nga ko doon wax. Hmm. incohérence boobu noonu euh, yow lan moo ci sa il faut ñu xam exactement xaalis bi ñu jëndee avion bi ci budget ban ministère la ko jëlee. tout ce qui des forces armées tout ce qui concerne le budget des du ministère des forces armées secret défense la parce que ñoom ni ñuy dépenser seen xaalis ñu ko ex bi ñu jënd ay ay chars de combat. wala loolu tax ministre bi ko violé. moom laa expliqué ni foofu laa jëm quoi léegi nag bu fekkee forces armées ñoom dañu am li nga xamante ne c'est des principes yi nga xamante ne cest la dé les les par rapport ak ministère. ministère forces armées. Mhm. c'est secret défense mais c'est secret défense on n'y peut rien. Mhm. maintenant quand nag c'est une exigence quand ça devient une exigence ba peuple bi di laaj. Mhm. des questions mais après politiquement. pour pour pour pour pour waxal nit ñi li xew mais le ministre peut sortir pour dire que exactement c'est ça c'est pas le ministre des forces armées qui est sorti c'est le ministre de l'économie et des finances qui est sorti pour éclairer la lanterne des te loolu c'est parce que nit ñi ñooy rend ñooy laaj exactement lu xew. waaw mais population buy laaj lu xew nag. ba sotti mais mais go mais xam nga tey booy jëflante ak population il faut que nga natt population bi ngay jëflanteel il faut nga leen di jox information yi nga xamante ni moom mooy dëgg ba pare leen jox information yoo xam ne dafay am temps boo xamante ni moo leen koy moom la leen koy jox état bi tey suñu annoncé woon nañu ñoo ngi commandé benn avion. peut-être mën nañu si bañ am benn problème mais jékki-jékki rek nañu jënd nañu avion <laughs> beneen bi nga ne ñu la wax duñu leen wax. ñaata lañ ko jëndee te bu dee tey secret défense la dafa am benn loo xam ne il faut que état bi jàngal ñu ko ndax ñun dañ ñuy tere ñuy violer li nga xam ne mooy ay secret défense. léegi nag liñ may la ñuy tere Macky Sall moom tere bu bi ñoo doon sonn ñoo doon sonn en tant que journaliste pour ma leeralal leen. ak lu coow li mënoon a bëri bëri est-ce que ministre bi waroon a génne pour violer li nga xam ne mooy secret de défense comme ñoom ni ñu ko waxee. voilà xam nga lépp c'est une question de perception d'accord euh, le ministre des forces armées du génn violer de défense le ministre des finances Euh, moom personnellement en tant que ministre de l'économie et des finances bi nga xam ne moom mooy euh, voilà piloter le, le la répartition du budget peut-être que moom côté politique la waxee d'accord te waxu ko euh, violé wu ko avant que la population n'exige exactement un compte rendu d' accord xam nga lépp rek c' est à relativiser man je veux pas être un politicien bi nga xamante je tire sur non damay réfléchir si j' étais j' quelque chose de clair en termes d' information que d' accord dañu fay cash avion bi je dirais je dis que c' pas du tout normal mais bu nekk c' est projet bi nga xamante ne depuis longtemps la mu fekk après Covid ñëw fekk ko fi ainsi de suite échéance ñu fay ko ba léegi mais attends qu' ce qu'on information parce dañu wax ne avion bi dafa màgget président bi nekkatul en sécurité dañu war a sécuriser suñu président bu fekkee nag bon point euh, euh, kii de point de Sangomar mu ngi en bon état dañu jënd avion pour des privilèges mais loolu c'est pas normal parce que on a d'autres priorités yi ma la liggéey léegi mooy santé éducation sport ainsi de suite. mais euh, lan moo tax ñu bëgg ñoo def jox psychologiquement que ne président dafa war a am avion lan moo tax loolu Sénégal te pourtant yow yaa ngi fiy jógee di dugg sa avion dem feneen ak feneen lan moo tax président mënu ko def. non président nag du man man je suis un citoyen simple bi nga xamante ne bu ma deewoon tey léegi léegi nii bokk ak un Macky Sall qui fait un accident qui meurt sur loolu ce sera ce sera une honte pour le Sénégal kon man je peux pas me comparer à Macky la question peut-être que da nga baax rek di ma comparer moom mais euh, euh, euh, c'est c'est c'est très différent maintenant mooy li ma doon waxaat rek. mais mais Macky Sall goo fay Macky Sall ni ñu war a sàmmee kaaraangeem sécurité ak lu mu mën di doon moom la ñu war a mën a sàmmee kaaraange sénégalais yi nga xam ne ñooy jël yeneen avions yi. waaw je suis d'accord mais tout le monde pas. kan lu tax kenn kenn mënul dugg si. te moom moo ne ñëpp ay citoyen ordinaire lañu. loolu waxtaan waxtu la rek loolu waxtaan la rek. mais moom moo ko wax. Macky tey li mu dem di signé ji au nom du Sénégal man mënu ko signé dayoo Macky ak sama dayoo bokkul sax dayoo sa dayoo ak keneen ak keneen Macky Sall ki nga xamante ne moom mooy représenter le Sénégal au niveau international. kon Sénégal ku mel noonu vraiment mën na ko comparer ak le Sénégalais lambda excuse-moi du terme wax naa nag bu ñu ñëwee si côté diine nag Macky Sall gënuma gënul keneen boobu yëpp euh, de Dieu et exactement de la loi mais nag Macky Sall c'est une institution. d'accord d'accord Macky Sall c'est une institution nekkatul Macky Sall bi nga xamante ne c'est le mari à Marième Faye et le fils de tel et tel Macky Sall c'est le président de la République du Sénégal. donc euh, il faut on, il faut ñu jox ko benn considération bi quelque minimum que ça soit. d'accord euh, Go Faye euh, ñu daal di euh, revenir à tuuti ci li nga xamante ni tey moom mooy sunu économie réew. nga xamante ni tey président africain yi comme ni nga ko doon waxee sànq président africain yi euh, loolu sax dafa bokk ci sénégalais yu baree bari bu ñu ko déggee euh, dañuy am sax gàcc am désespoir ci conseil local gi président di wax euh, sénégal yu bari sax dañuy dem ba dañuy am lu ñu si met ndax conseil local du caage ne li ñuy bay fii rek la ñuy dundee conseil local bokk na ci xelu sénégal yi nga daal di koy jëfandikoo mais bu ñu gisee chef d'état africain yi ñoom ñëpp. ñu gurguru leen invité leen Paris euh, Emmanuel Macron te ñun suñu réalité réew wax dëgg yàlla ak suñu continent ñun ñoo ko gën a xam. Euh, keneen kenn ku nekk yàgg na xam sa sa comme ni ñu koy ni ñu koy waxee. Mm. léegi est-ce que euh, Sénégal wala africain ñoo amul. ay économistes yu baax ay experts financier yoo xam ne tey war nañu mën a xalaat ëllëgu Afrique ba ñu dem français yi dañu organiser ab sommet. waaw c'est en fait sénégal yi ak tubaab yi gis nga économie économie la économie bi ngay jàng Cheikh Anta Diop moom ngay jàngee eh, université Sorbonne wala feneen ak feneen d'accord euh, c'est-à-dire question de xam-xam sànq si da nga may sa baabu on a le professeur Kassé des éminents économistes yi nga xamante ne dañuy génn dans la sous-région def ay consultance d'accord professeur ak Mor ak Mohamed Diouf ak ñeneen ak ñeneen Ousmane Sonko dans son domaine c'est un expert c'est-à-dire du question de compétence du question de xam-xam tubaab yi ëpp ñu ñu xam-xam la preuve boo demee si dëkk tubaab yi euh, euh, suñu étudiants yi ngay fekk ñuy damee le pion ak euh, tubaab yi du dëgg maintenant question de leadership la. c'est-à-dire leadership moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu diriger est-ce que am nañ le cran pour affirmer et dire à l'Occident que laissez nu réfléchir no propres économies nos modèles économiques bu leen ñu imposer parce que institutions FMI ak banque banque mondiale les institutions de Bretton Woods même bu nekkee plan d' ajustement structurel ñoom ñoo la naan jëlal xaalis dugal ko fii c' est pour nous endoctriner pour wan ñu pour téye ñu si benn pauvreté extrême bi nga xamante ne on va toujours de l' parce que nag quoi qu'on puisse dire euh, euh, au lendemain de la guerre mondiale bu ñu créer institution yooyu noonu noonu pour éviter yenn euh, xëccoo yu métti la ba yi nga xamante ne mën na aboutir si guerre mais derrière dafa un projet économique bi nga xamante ne mooy téye les Africains ci benn niveau de pauvreté extrême bi nga xamante ne dañuy dépendre si tubaab bi parce que tubaab bi xam nañ ne en âme et conscience si l'Afrique euh, se libère de ñoom mais ñoom seen économie day daanu parce que tubaab bi amuñu amuñu ressource amuñu amuñu dara te bu ñu demee ba tolloo demal seen bopp. bien sûr mën nañ demal seen bopp mën nañ demal seen bopp lépp lépp loo gis rek gëm-gëm la lépp loo gis gëm-gëm la mais bu fekkee tant ñu ngi foog ne mënuñu dem sans tubaab bi mais dañuy nax suñu bopp. tubaab bi aujourd'hui ñoom ñooy défendre. kuy responsable kuy responsable quoi. Euh, jël réew mi wala jël pays lëm wala continent bi lëm tay la ko. tay la ko mais nos dirigeants Abdoulaye Wade je me rappelle une fois dafa dem sommet FAO mais il a été agressif euh, en, en, envers le les les blancs ne leen bàyyi leen ñu ñu xalaatal suñu bopp. mooy jamono Jacques Diouf. waaw ne leen bàyyi leen ñu xalaatal suñu bopp suñu économie li ngeen def ay naxaate la mënoo leen ñëw di toog di réfléchir suñu économie. ne leen dañ boo leen bu ñu leen di lebal à condition ngeen dugal ko fii la ñun xam nañ suñuy priorité xam nañ comment exactement naka la ñuy développer suñu dëkk mais bu leen ñu tënk lebal ñu ba pare bor boo xamante ne bor la boo xamante ne da lay gën a dugal par exemple si on prend l'exemple de 1981 dañu imposé woon FMI ak Banque mondiale un plan d'ajustement structurel imposé ñu ne bu leen wàññi leen leen dépense wàññi leen léegi dugal ñu si train bi nga xamante ne de 81 à 2000 dëkk bi dafa metti foofu lay waxee léegi nag bu fekkee amuñu ay leader force on peut prendre l'exemple du Rwanda Paul Kagame bi mu ñëwee dafa accuser la France ne leen yéen vous êtes complot si li nga xamante ne mooy génocide bi parce que boobu les institutions yi nga xamante ne ay ONU yooyu gisoon nañ ne utu eh, eh, yi ñu ngi massacrer tout si mais ONU yi nekk fa sur la base mais ñu xeex ba nit ñi rey leen reyante leen mu ne la France est complice langue bi la njëkk a dindi langue bi la njëkk dindi ne français duñ ko lakkati suñu dëkk indi anglais gëm ne les économies africaines dañu war a dépendre si seen bopp nañu propre nañ créer suñu propre modèle économique gëm ko te tubaab bi bu booyeex bu demee ba xam ne ñii gëm nañ seen bopp tubaab bi dina mën a revoir les termes de l'échange demal Ghana le président Nana Akufo dafa taxaw si kanam Macron ne leen ñëw ñu pour di leen ñaan xaalis ñëw ñu pour di leen saraxu dañu bëgg ñu def partenariat d'égal à égal ça c'est des leaders forts maintenant gis naa ne président Macky aussi Euh, quelquefois il tient il essaie de tenir tête et tout mais c'est bien. si lan si yenn yi par exemple quand il dit que par exemple si période euh, bi bi banque mondiale di injecté éco euh, xaalis si économie africaine yi génnee ay milliers de milliards 300 milliards lañ dugal Afrique mais c'est n'importe quoi c'est-à-dire mi ngi mel ni tubaab bi ñoo gën a soxla xaalis bi institution internationale di génne di ñu gëmloo ne ci 3000 xaw ma 2000 milliards yi ñu génne Afrique Afrique laa si 300 milliards c'est-à-dire le alors que c'est l'Occident qui a beaucoup plus besoin euh, de l'Afrique ou surtout du Sénégal nag parce que tey richesse yi génn Sénégal même les Russes les Chinois sont intéressés c'est-à-dire ñun ñoo war a xam ne ñun ñoo nekk si position de force économie les leaders am ay leaders forts yi nga xamante ne dinañ mën a toog autour d'une table avec les dirigeants blancs ne leen il faut qu'on revoie les termes de l'échange que ça soit un partenariat gagnant-gagnant nekkatuñu pour i doom ngeen ñu diriger leen fii jaar leen avec la nouvelle génération. mais euh, président mac Sall moom wax dëgg yàlla euh, goo fay euh, nga baal ma mais gisuñu benn fulaak fayda boo xam ne wane na ko ci kanamu ñi nga xam ne ñooy tubaab yi. moo xam tey entreprise étrangère yi la gën a jox bopp collaboration bi nga xam ne moom la entreprise étrangère yi waroon am ak entreprise nationale yi soo xoolee du si baree baree bari entreprise étrangère yi respecté wuñu ko bëri dafa ay ay marché yu bari yoo xamante ni tey. Euh, ci seen loxo lañ koy teg maanaam ñun su suñu wàllu wàllu koom wàllu économie wàllu moom suñu bopp comme ni nga ko waxee tey ay Ghana ak ay Rwanda taxawaay boobu ñu am ci président yooyu man Macky Sall mooy sama président mais man li ma gis président Rwanda am ko ak président Ghana ñun man man bu ma ko gisoon ci Macky Sall dama lay wax na la gis naa ko ci Macky Sall ndaxte yow yaa ngi may citeel benn discours Ablaye Wade te pourtant discours boobu 2009 la woon. 2009 ba léegi benn discours nga ma fi citeel léegi depuis 2019 ba bu euh, beneen discours boo xamante ne bu courageux lay doon jëm suñu wàllu moom suñu bopp. loolu vraiment goo fay mbir mu doy waar la. du doy waar la moo tax bu exemple si ñi nga xamante ne ils tiennent tête à l'Occident c'est des leaders forts de l'Afrique waxuma Alassane Ouattara waxuma Macky Sall dama ne Paul Kagame même si des gens disent mais man j'ai par rapport de démocratie parce que dëkk bu nekk am nga say réalité waxuma la keneen dama la ne Nana ku c'est-à-dire li nga gis loolu laa gis. J'ai cité Abdoulaye Wade parce qu'il a su tenir devant l'international un discours fort en disant que à l'Occident que arrêtez ce que vous êtes en train de faire gisuñu ko ci Macky Sall mais au moins Macky Sall di nga Alassane Ouattara mu ne bàyyi leen bor bi au moins tey même bu fekkee ni mu koy waxee moom da ciy jëlaale lem diw si tuuti mais il est en train par rapport à son niveau de courage ni muy waxee mais dama ne je ne salue pas ça man bu ma nekkoon place Macky de faire il faut qu'on se regarde d'égal à égal qu'on revoie les termes de l'échange yaa ngi wax sànq suñu économie dafa dépendre ci euh, les entreprises étrangères képp ku jàng économie di nga xam ne euh, euh, pour développer une économie il faut nga def l'environnement des affaires mu nekk foo xamante ne lu naax lu baax la bi nga xamante ne tey ya a pas de risque pays c'est-à-dire ñi nga xam ne dañuy ñëw investir balaa ñuy ñëw mais dañu naan ok est-ce que dëkk bi am na jàmm am na am na sécurité am na justice d'accord est-ce que les entreprises sont protégées ainsi de suite léegi deuxième phase bi nag mooy est-ce que le coût de la matière ndax baax na c'est-à-dire énergie bu entreprise day utiliser courant de utiliser euh, masse salariale je veux dire ressources humaines ainsi de suite c'est-à-dire yooyu yëpp dañu koy analyser léegi nag entreprise buy ñëw bu fekkee ñun côté économie dañu leen exiger yenn mbir yi ñu suivre de sorte dinañ dinañ ci gis bopp mais je trouve pas de problème à ce que les entreprises étrangères viennent sauf que entreprises étrangères yooyu tant defal defaluñu leen ay ay ay réglementation boo xamante ne li ñuy am comme bénéfice lépp du génn si dëkk bi di leen def ay exigence mm. moi je pense que côté boobu la ñuy perte mais bu nekkee tey am nañu ay ponkal yoo xamante ne dañ toog ne leen képp entreprise étrangère bu fiy ñëw mun nañ la defal ay facilité mais nag da ngay def lii côté responsabilité sociétale d' entreprise par exemple l' entreprise bi dem côté Diogo fee di di di exploiter euh, le gaz responsabilité sociétale amu foofu parce que boo demee dans les villages qui environnent. dimbali dimbaliwuñu leen si dara dimbaliwuñu leen alors que loolu dafa bokk ci critères yi. est tu comprends. waaw mais mais est ce tey par exemple tey entreprise étrangère boo ñëwee ñu ne euh, entreprise euh, entreprise nationale bi mooy dina ci am trois pour cent wala cinq pour cent ngeen ngeen ngeen ngeen collaborer wala dara. moom laay wax c' est à dire lépp loo gis waxtaan la. léegi nag loolu c' est un leadership bi nga xamante ne moo koy imposer. bu ñu doogee su waxtaan suñu biir ne képp ki nga xamante ne da nga fi ñëw investir il faut que euh, mu am une contribution euh, du patronat local pour ne pas dire des entreprises locales xool ñi nga xamante ne dina arrangé waa dëkk bi nga xamante ne tubaab bi duñu jël alal bi yëpp di ko yóbbu wala suñ société yi nga xamante ne c'est public privé hmm, ñi nga xamante ne état bi da ciy am genre euh, des actions après le privé am ay action privé interne privé euh, étranger bi c'est-à-dire ñu revoiraat exactement taux yeeg yooyu. sa à dire foofu laay waxee ko d'accord mais mais Go yaw yow. Euh, yaa ngi wax en tant que. économiste euh, mais man li ma gis mooy ñun Sénégal amuñu problème mu wala ñun suñu ndóol gi du problème mu franc CFA wala problème mu éco bien vrai que peut-être mën na si am mais man si sama gisin. mooy su doon tey bon gouvernance ni ñu koy waxee ci Sénégal bon gouvernance am na alalu askan wi ñu yaxanal ko sàmmal ñu ko teg ay institution yu dëgër koo xam ne képp ku ngar daajoo alalu askan wi ñu teg la ci yoon amul ma sàmb amul ma demb jàpp naa ne kon sénégalais yi troxtaange gi ñu nekk dina dina dina dañ ndax li ñu gis mooy ñu fi nekk euh, jiite réew mi 2012 ñetti at nga bëgg fee nekk milliardaire loolu amul fenn ci àdduna bi mm. bëgg fi tabax ay château bëgg fi yor ay ay ay parkinu oto bëgg fi yor teraanga joo xamante ni tey ju ju jéggi dayoo la euh, ak détournement yi nga xamante ni tey euh, moom lañu fiy gis vraiment jàpp naa ne yooyu yëpp bu ñu ko saafaroon ndax barki démb maa ngi dégg ministère de la de la pêche mu wax ne dafa am étude boo xam ne FAO ñoo ko def nee nañu Sénégal cinquante milliards la ñuy ñàkk ci géej gi ci napp gu jaarul yoon. xam nga loolu yoonu ekku nekku ci yoonu France CFA nekku ci. Mm. loolu su doon ñun marie nationale taxawaay bi mu war a am am na. amul benn corruption bu ci am ndax am nay sanction yoo xam ne bateau étranger bu nekk 500 millions nga war a fay bu ñu la jàppee ci napp gu jaarul yoon ba 1 milliard mais bu dee da nga war a joxe 500 millions joxe 200 millions leneen la nga ngar daajoo ko détournement la corruption la est-ce que yii ma la wax nii bonne gouvernance bi su amoon dëgg dëgg dëgg euh, Sénégal du mën a du mën a suqaliku. effectivement effectivement xam nga bon gouvernance moom mooy socle développement loolu ci nit ñi la ci éducation yi de suite. mais une économie ne peut pas rester introvertie c'est-à-dire Sénégal mënul tëj ay frontières ni Sénégal rek laay yem développé ko c'est pas possible képp ku jàng économie bu la waxee loolu du la wax loolu sax c'est-à-dire ñi xamul ñoom ñooy wax loolu c'est-à-dire dañu war a combiner les deux def bonne gouvernance au niveau local c'est-à-dire euh, au sein de notre pays fexe ba lutter contre la corruption c'est-à-dire yaa ngi wax ne euh, cent cinquante milliards la ñuy perte mais tey li li Sénégal di perte Euh, si ay ay ay recette fiscale ak ak yeneen ak yeneen. mais corruption rek laa la wax. moo gën a dangereux si loolu. corruption xam nga sax yooyu yooy yooyu leneen mais corruption mooy nga nga nga war a comme fay fay fay fay tel montant jox kii lii nga xamante ne ñu wàññi lii wala doo fay loolu. Mm-hmm. cest à c'est da c'est à tous les niveaux. corruption am na États-Unis am na France mais dafa di dafa gën a kawee Afrique d'accord léegi naa bu ñu génnee si loolu bu ñu réglé problème bi problème en interne. c'est le problème de Sénégalais ñu doo a xool nag notre relation avec l'extérieur parce que quoi qu'on puisse dire gis nga boo jàngee économie dañuy wax ce qu'on appelle la balance des paiements c'est l'ensemble des échanges économiques qui euh, régissent euh, euh, nos échanges entre le Sénégal et le reste du monde c'est-à-dire balance commerciale bi jënd ak jaay ñaat la ñuy jënd ci biti ñaata la ñuy jaay pour économie nga defar ko nag il faut nga def de sorte que li ngay jënd ci biti ak li nga leen di jaay. Mhm. li nga leen di jaay ci yow. mu ëpp li nga leen jënd bu ko defee xaalis seen dëkk yooyu ngay dugal sa biir dëkk tubaab bi ñoom noonu la ñuy raisonné mais ñun suñu économie ñoom mun raisonné noonu mm-hmm. par exemple tey dañu ne woon dans 2017 dina atteindre autosuffisance en riz mm-hmm. mais c'est des milliers de milliards la ñuy dépenser en riz mm-hmm. ci jënd ko alors que vallée bi mu ngi fii am nañ dex am nañ naaj cest à bu ñu bayee ceeb normalement du ñu jënd ci ceeb en Chine mais malheureusement mooy li wax. mal gouvernance mooy mal gouvernance bi mauvaise politique économique. Ah ah. du dëgg c'est-à-dire on est conscient de ça mais loolu c'est problème du sénégalais. toi mënuñu ko régler loolu si ñun la ñoo war a xam exactement il faut ñu teg ay nit ñu jub ci ñi nga xamante ne c'est des. preneur de décision ñu mën a prioriser suñuy dépense xool suñu économie développer suñu agriculture mu laal industrie bi mais on a la création d' emploi pour ñëwaat tuuti ci emploi bi ngay wax. d' accord jërëjëf euh, goo Faye responsable politique la nekk parcelle yow yaa ji ay coordonnateur mouvement réaction. Ah. léegi ñu wax ci euh, élection locale yi. Hmm. après peut-être bu ñu ko temps bi maye en tant que jeune dinañu wax ci li nga xamante ni tey mooy euh, emploi des jeunes mais tey yow. en tant que euh, ku jiite mouvement réaction yow parcelle Assainies xam nga tamit euh, Gofa yi vraiment ngeen taxawalal seenu mouvement bëgg ne da ngeen laaj mairie bi euh, war ngeen koo teg nag ci programme yoo xam ne programme yu leer naññ lay doon mu nekk programme yoo xam ne yu fiable lay doon ay boroomu xam-xam daal di koy tënk mu bañ a yem rek ci Moussa si neexu leen Euh, ngeen bokkoo koo jëlee foofu noonu nga xamante ni tey moom mooy euh, mairie bu mairie bu parcelle est-ce que tey mouvement réaction am ngeen programme boo xam ne euh, programme bu yanu maanaa la ngir soqali seen commune. effectivement xam nga <laughs> damay njëkk a ñëw si deuxième question bi nga wax ne ñu noona ah, man Moussa Sy aw ma benn problème moom. Sénégalais la jullit la il a le de compétir avec qui que ce soit mais nag li mu yor du alalam du du. c'est-à-dire alalu askan bi la yor muy mairie bi nga xamante ne dañuy collecter les ressources de tout un chacun bi nga xamante ne man yow ak keneen ak keneen ñi dëkk Parcelles Assainies lañ jàpp ne moom la ñuy mooy la ñu ñoom la ñu yellool ci wàllu euh, recette ñu jox ko ko ne ko essayer de faire des dépenses yi nga xamante ne pour identifier les besoins des population nga apporter ay solutions dans ce cas de figure là sa gestion nous nous intéresse yaa ngi dégg looloo tax rek ñuy wax turam mais sinon mën nañ dund ba dee duñ sax xamante. waaw non mais dama ne euh, dinañ ñëw ci wàllum euh, redécoupage administratif bi mais yéen mouvement la réaction yéen doon ngeen jéem a euh, xëccoo li nga xamante ni mooy mairie bi. élection locale yi ñu dëgmal est-ce que am ngeen ab programme boo xam ne man ngeen koo teg ci loxoy parcellois yi kan ne leen yéen bu ngeen ñu falee lii la ñuy def biir parcelle. effectivement xam nga dama posé ndoo ñaari question ma commencé si Moussa Sy bi nga ne du ñu suñu programme du ñu ko teg rek dañu bañ Moussa Sy moo tax man la bañuñu ko sequñu moom dara mais am nañ droit am benn contrôle citoyen bu ñuy teg si nga xamante ne comment il gère tu as parlé de mal gouvernance tout à l'heure la ñuy waxee d'accord pour wax rek ne exactement la manière dont il gère notre deful benn réalisation léegi ñu pare si Moussa Sy maintenant nous en tant que euh, mouvement citoyen euh, dañu gis ne depuis 2012 li nga xamante ne les neuf domaines de compétence bi nga xam ne état central da ko jël jox ko mairie bi ne ko lii mënuma ñëw di ko gérer dama lay jox benn budget nga koy gérer au niveau local mais defu ko parmi ces domaines de compétence là ñu jël ci trois yi nga xamante ne mooy les prioritaires mooy la santé sànq wax naa la ko Parcelles Assainies commune bi toll ni moom am avoisine les plus de 400 000 habitants nekk la première commune en termes d'électorat avec 95 000 inscrits sur la liste électorale nee nañ plus grand nombre de de centres de vote plus grand nombre de bureaux de vote au Sénégal qui gagne Parcelles Assainies gagne Dakar Parcelles Assainies amul hôpital centre de santé la am est-ce que loolu tu penses que tey mës gis Moussa mu dem ci télé bi wax ko alors que moi fu ma dem ci plateau yi damay ne l'État du Sénégal dafa war a taxawal tabaxal Parcelles Assainies hôpital de niveau 1 parce que les normes standards disent une population bu amee 10 000 habitants benn centre de santé bu eggee mais loolu xal xa wu ma ko nit ñi ñoo ko wax les normes man dama dem ba extérieur à travers mes relations et mon portefeuille relationnel mu andi des lits d'hospitalisation de dernière génération d'une valeur de 20 millions yóbbu ko centre santé Mame Abdou Aziz te du ma maire du dara je suis pas fonctionnaire dans la mairie dafa am li nga xamante ne les relations. mais loolu c'est normal en tant que sénégalais en tant que Parcelois. effectivement waxtuma ma en tant que maire. léegi nag moo tax ma la wax loolu dama jël exemple si man pour war leen man jaruma cachet municipal du ma fonctionnaire samay relation internationale ak samay compétence ak samay xel mais ñoom ñi nga xamante ne ñoom nekk si économie sociale mais mosuñu andi dara Parcelles Assainies loo xamante ne tey c'est yi nga xamante ne euh, proposé nañu ko waxuma la sax poste de santé wala hôpital. kon yow da euh, ci ci ci mais yow mi sax da nga am déception si moom. déception bi weesul rek ci ci côté comportement parce que ñun dafa am loo xam ne dañu ko war suñuy suñuy suñuy mooy l'éthique et la loyauté en mais koo xamante ne da nga ne man damay politique par A ou par B lu neexee laay gagné. sama yoon fu tooy nga dal fu tooy man bëgguma bàyyi euh, valeur yooyu suñuy suñuy léegi nit ñi sax booy politique dañ lay dañ lay xeeb ndax dañu foog ne politiciens yi yëpp mais ñun suñu responsabilité mooy suñu éducation ak suñuy valeur fondamentale yi nga xamante ne suñuy maam yi moom lañu fi bàyyi mooy jom fulla ak fayda fonk sa kàddu mais mu am solo mais yow boo ànd ak nit di nga yuuxu te day saaga da ngay yuuxu saaga yuuxu mais ëllëg nga ñëw changer carrément et puis li si gën a grave nga si impliqué population Parcelles Assainies naan bi may def lii dama consulter eh, Parcelles waay ce qui foofu la ñuy waxee mais la personne de Moussa Sy en tant que telle ne nous intéresse aucunement mais ah. le maire Moussa li muy def Parcelles Assainies teg ko si yoon tey naka la ñuy waxee Euh, euh, euh, un projet de décopage ñu bëgg a jël Parcelles Assainies dugal ko feneen doo dégg kenn Parcelles Assainies mu jóg ne ils sont pas d'accord Parcelles Assainies ñii neen dañ bëgg a dugal Guédiawaye ñii neen dañu bëgg a créer ñaari ville ci département de Dakar bi pour dugal ko ci beneen ville mais ko accès la au demeurant lu ci mënti am Parcelles Assainies warul génn département de Dakar parce que département ñun Dakar lañ juddoo le département de tey boo demee Paris da gis la ville de Paris nga dem New York la la même chose Dakar c'est symbolique du ay affaire de kii c'est-à-dire bu ñu def découpage yi bu corriger ay erreur nañ dem si fi nga xamante ne si dans les régions wala ainsi de suite ñu corriger ces imperfections là quoi dans le cadre de voilà de, de la réforme des des des collectivités territoriales mais Dakar lan nga fi def pour bëgg a protéger des des des intérêts xaaral xaaral boo da nga jàpp ne da nga jàpp ne tey Parcelles Assainies dañ ko bëgg dagg benn pàcc bi yóbbu ko ci département bu Guédiawaye benn bi ñu yóbbu ko département de Dakar. waaw da loolu la gars yi bëgg. non waxuma loolu dama ne dañu ne dañu bëgg a jël Parcelles Assainies taf ko si Guédiawaye à 100 pour cent. parce que y une partie de Parcelles Assainies qui qui demeure dans le département de Guédiawaye parce que de unité 1 à si commune Golf la bokk. te pour des guéguerres politiques moom moo taxoon gars yi def ko c'est-à-dire on a été Mamadou Diop dagg unité 1 ba unité 6 pour affaiblir Tete Diédhiou à l'époque jël loolu taf ko si ci ci si si département de Guédiawaye. yéen lan ngeen doon ànd ci redécoupage administratif. redécoupage administratif bi dama ne la jeunesse des Parcelles Assainies sera contre toute velléité allant dans le sens de prendre les Parcelles Assainies di ko génne si département de Dakar. parce que bu lan ngeen ci man dañuy def marche dañuy def wax ne suñu on n'est pas on n'est pas content mais aussi. ñun am nañ loo xamante ne suñu gëm-gëm la c'est-à-dire ñoom duñ ne ñoom ñoo ñu jiite rek dañu war a toog di defal su di ñu defal lépp dañu war a consulter di xool ce qui est en ko. Mm-hmm. mais ñu ngi xeex. Bambilor oui ay euh, euh, Bambilor fu baree baree. bari xam lu tax loolu. Mm-hmm. ay jaxaay lu tax loolu. ñoom ànd ñu si découpage. parce que le ministre des collectivités territoriales Omar Gueye moom mooy maire Sangalkam. Mm-hmm. Sangalkam amul assez de recette. ñu bëgg a wàññi si. si foncier wu commune de Bambilor bi taf ko seen bopp jël si huit villages taf ko fa. yow pour yow c'est pour un découpage pour corriger les imperfections. d'accord mais mais Go te plaît pour corriger les imperfections ou bien pour pour lan la c'est pour des intérêts financiers c'est pour augmenter sa recette. c'est-à-dire loolu ak électorat bi ainsi suite pour affaiblir l'autre en tout cas c'est leur kii mais ñun daal en tout cas comme Barthélémy Dias nu mu koy wax. dans notre plan d'action stratégique dañu nañ marche pour dire que les Parcelles Assainies on n'est pas d'accord pour ñu dindi ko ci département de Dakar. mais da nga jàpp ne maire bi complice la walla. mais euh, lépp li nga xam ne silence la ci complice. tey boo ñoom ñëpp tey ñoom ñi nga xamante ne dañu bokk ci mouvance présidentielle nanguwuñu ne Parcelles Assainies dañu ko war a génne ci département de Dakar. est-ce que parce que da nga bëgg a soutenir un candidat da war a croiser les bras ainsi de suite cest dire Parcelles Assainies suñu identité la ñun on se réclame parcellois et fier de l'être tey bu ma nekkoon maire Moussa Sy bu fekkee si mouvance bi laa ne dinaa si sama position. bi ñu la mooy différence su euh, parcelle ci département de Guédiawaye la nekk ak département Dakar. waaw c'est important dafa am li nga xamante ni c'est symbolique loolu c'est a dénaturer en tant que tel parce que boo dindee Dakar mais dakaar du existé ti loolu c'est une chose est-ce que tu trouves que c'est normal léegi nag bu ñu génnee dakaar man ma ñëw ci Parcelles Assainies ma maison par exemple qui coûte euh, en termes fonciers euh, 50 millions wala waaw 50 millions aux Parcelles Assainies parce que dafa bokk ci département de Dakar parce que bu ñuy xayma dafa ay baromètres yi nga xamante ne par rapport fi nga nekk te département bi nga nekk valeur est une maison à aux Parcelles Assainies lu tax. parce que parcelle ci département Dakar la ne tey bu ñu génnee parcelle dugal ko ci département de Guédiawaye mais les nos maisons perdent en valeur waxatuma la nag suñu euh, excuse-moi suñu identité ak yeneen ak yeneen. dugg ci banlieue bi. <laughs> non ñun sax on est fiers d'être banlieusards parce que ñun on est à mi-chemin la ville et la lan moo ci lan lan moo ci yéen tamit opposition bi yéen euh, jaaxal ngeen ma yéen lépp lu nguur gi def ngeen bëgg cee gis politique loolu mooy l mu moom. non non non je suis parce que dama gisoon ne les 15 points du référendum am na ay points yoo xam ne c'est essentiel il faut ñu corriger ko parmi lesquels euh, ñuy bàyyi nit ñi ñu candidater les personnes les candidatures indépendantes pourtant j'ai dit oui nit ñi ne ma Macky Sall ngay jàppale mais du du loolu c'est-à-dire quand c'est bon j'applaudis quand c'est pas bon aussi j'ai le courage de jàpp ne moo tax redécoupage bi bon redécoupage bi daal pour man c'est pour régler des problèmes politiques fi mu toll nii les sondages disent que bu ñu demee élection locale le régime présidentiel perd dans le département yor nañ seen i sondage opposition bi yor nañ ko léegi nag c'est une stratégie très très simple pour affaiblir ñi nga xamante ne mooy les leaders de l'opposition ñi nga xamante ne tey jeunesse bi wóolu nañ leen parce que seen i comportement ak seen i réalisation ak seen discours constant et logique bi nga xamante ne moom la ñuy wax ndaw ñi en l'occurrence Barthélémy Diaz ñu bëgg ko affaiblir c'est aussi simple que ça en donnant de la force un peu à peut êtr euh, parce dafa am une compétition au sein du régime présidentiel entre Diouf Sarr et Amadou Ba c'est c'est normal nag mais xeex xeex la seen parti la ils n'ont qu'à régler leur problème de parti en interne mais pour xaaj Dakar euh, Parcelles Assainies dugal ko fii wala ñu def Parcelles Assainies euh, dugal ko si créer deux villes sur jël parcelle taf fii pour kenn ki jël fii kenn ki jël fële mais loolu ñun ñun dans tout ça c'est quoi. waaw mais Go Faye euh, il faut ñu dellu si si parcelle tuuti sànq yaa ngi songu maire bi Moussa Sy mais Amadou Ba nekk na fi ministre boo xamante ni tey nekkoon na ministre bu am doole ay yoonu yoonu yoon. lan la ban taxawaay la Amadou Ba taxawu woon ñi nga xam ne ñooy waa Parcelles Assainies ak Mbaye Ndiaye mi nga xamante ni tamit nekkoon na ancien maire parcelle. bon man moom euh, peut-être taxawoon na ñi ko ñu ànd ak moom mais man gisuma taxawaay parce que bu ñuy wax taxawaay mooy mooy des réalisations concrètes quoi un Idrissa Seck bu mu nekkee premier ministre. Mm-hmm. mais si lañ defar Thiès. ba Thiès Thiès waaye da ngay dem sax ñu naan Dakar ëppale wala ñu dara. mais waxuñu bi de. non moom bien que nag Amadou Ba nekkul ci posture maire wala ainsi de suite mais c'était le ministre de l'économie et des finances c'est-à-dire moom orientation budgétaire il avait de l'influence la preuve bi suñu stade bi bu ñu demee ba kaas yi mais il avait donné des directives comme quoi que ne parce que quand je parle de directive c'est-à-dire mën na allouer benn budget ministère des sports ne ko lii c'est c'est destiné au stade des Parcelles Assainies te côté boobu nag vraiment def na si euh, kéemtulaay kàttam côté boobu mais en terme de réalisation concrète laa la wax man gisuma ko parce que ñi àndal gisuñu ko peut-être moom ñi àndal gis nañ ci son son son son apport au Parcelles Assainies mais gisuma ko man concrètement man man mooy juge je juge Moussa Sy en tant que tel Moussa Sy laa juge parce que moom lañ jox suñu budget suñuy recette ak suñu kàddu mu jël suñu kàddu jaay ko deful réalisation donc je dis que Moussa Sy c'est un incompétent il est grand temps qu'on change l'équipe municipale Amadou Ba nag bis bu déclarer sa candidature ne il est candidat aux élections euh, aux Parcelles Assainies on sera la condition est am confiance Amadou Ba dem jàppale ko jàppale Amadou hmm. man je suis de l'opposition et je waaw non mais xam nga Go Faye euh, yow sànq nee nga doo doo opposant boo xam ne rek da ngay tiire rek mais Amadou Ba mën na fa nekk candidat en tant que doomu parcelle mais ni ko fa candidat en tant que bokk ci benn bokk yaakaar yow nga xam Amadou Ba mu dëkk parcelle yow nga dëkk parcelle est ce que boo jàppee ne moo gën ci parcelle doo dem nga soutenir ko. man jàpp ma ne moo gën ci Parcelles Assainies loolu la naa ne man maa gën a bëgg Parcelles que man Amadou Ba buy nekk ministre ñëwul ne dafa bëgg a nekk maire Parcelles Assainies il a fallu ko ñu yónnee ko foofu mu doogoon ñëw ne dafa bëgg Parcelles Assainies man bi may bëgg Parcelles Assainies kenn yónneewu ma. Mhm. bi may ñëw ne damay di jël sama alal di ko def ci Parcelles Assainies xaaruma élection kon man dama bëgg Parcelles Assainies damay réclamer identité parcelloise. d'accord Parcelles Assainies laay yeewoo fa laa dëkk. li may réaliser si Parcelles Assainies à mon âge par rapport ak sama niveau financier ah mais mon gars gars yi bu ñu tolloo fi ma toll kenn deful li ma def. est-ce que am na benn corps de contrôle bu mos a auditer Moussa Sy. effectivement Moussa Sy ñun on a on a dénoncé dans le cadre de la CDIPA des des <laughs> benn affaire boo xamante ne c'était c'était malsain c'est-à-dire ils sont directeurs mu jël ko. Euh, mu muy utiliser le ko mairie di fayee ko 10 mille francs par offre de bourse yi nga xamante ne des écoles en partenariat la xaalis boobu yëpp ñu détecté ko on a dénoncé des corps de contrôle comme. cour des comptes ñëw cour ñëw na fa. dem nañ seen rapport mais jusqu'à présent on n'a pas eu de truc alors que ñu ngi xaar ba élection de 7 mois ñu dem mairie Barthélémy Dias di ko jéem a di euh, voilà di di pour intimider ko parce que tey c'est un potentiel. Euh, adversaire adversaire c'est un adversaire tey bu ñuy def département de Dakar le seul adversaire redoutable par rapport au régime c'est Barthélémy Dias kon kooku ñun jeunesse bi nga xamante ne dañu am yaakaar ci moom gis lu muy réaliser nekk nitu dëgg dañ ko war a protéger. d'accord léegi euh, goo fay euh, laaj bu mujj bi yéen tey mouvement réaction yéen da ngeen a bëgg a dem ci dangeen ngeen a bëgg a dem ci élection locale yi waaw wala déet. parfaitement on ira aux élections locales. Euh, yan projet ngeen yóbbaale goo fay loo xam ne tey lii bu ngeen gañewoon mairie bi topp lii ngeen di liggéey. lan la effectivement question. juste rek avant may tontu ci question boobu di wax ne on n'a pas attendu d'être maire pour faire des réalisations Parcelles Assainies d'accord loolu c'est une chose Parcelles Assainies teg nañ seen bët ci volet social volet politique volet économique bu ñu nekkee maire li ñuy prioriser mooy le sport la santé et l'éducation laal ci environnement parce que je me rappelle en 1998. sécurité nag. bien sûr loolu en fait dama jël par priorité parce que lépp neuf domaines de l' assainissement c' est un problème au passé sauf que assainissement mu jël état a jël. mais moi maire bu Parcelles Assainies bi amee problème assainissement si télé bi wax ne état du Sénégal deful dara Parcelles Assainies parce que ce qui est véritable suñu terrain suñu assainissement bi nawet bu ñëwaat lii côté unité 15. yéen ngay njëkkee yow boo nekkee maire. la santé parce que je me parce que Parcelles Assainies c' est une population très très jeune mais quand une population est jeune et puis qu' elle n' est pas en bonne santé euh, du mën a. da ko mën a da si mën a profité man bu may damay triste bu may gis ñoo xamante ne dañuy feebar passé assez war def rajo génn Nabi Choucair wala Grand Yoff pour fajo ji ma gis ñoo xamante ne bu ñu waree wasin bi nekkee dañ la war a opérer il faut ñu évacuer leen on perd beaucoup de vie si yooyu manque d'infrastructure yooyu noonu. après santé. la santé l'éducation l'éducation nag une yi école primaire yi lañ ko alloué parce que la ville de Dakar moom mooy gérer les lycées mais qu'à cela ne école yi primaire yi boo demee Parcelles Assainies dafa école yoo xam ne bu amuñu sax buntu bunt salle de classe yi dañu nekk ci état de bu très très avancé moom mais xale yi nan la ñu mën a jàngee ci xel bu dal. d'accord après l'éducation. Euh, le sport. parce que nag depuis 2012 Parcelles Assainies dañuy génn dem di géejawaay wala di wàllu yaani terrain de football. te boo demee si équipe football yi nekk Sénégal yëpp ay jeunes Parcelles Assainies ñoo fa nekk di football. te sport dafa nekk li nga xamante ne tey c' est fondamental pour vendre la destination des Parcelles Assainies tey ñu ngi wax Coupe d' Afrique ba si soccer. place bu gën a rëy par place Parcelles Assainies amul si Sénégal mais. te li ñu def yóbbu Mbour mënoon nañ ko def fi vente la aménager ko aménager ko mais c' est à dire manque de vision mon frère ñi nga xam ne ñoo ñu diriger amuñu vision amuñu gëm-gëm amuñu relation man j'ai yi nga xamante ne waxuma la. côté aménagement littoral mais terrain ACAPES bu ma nekkee maire en moins d'un an ñu def ko gazon synthétique boole ko terrain Parcelles Assainies bi j'ai des partenaires yoo xam ne ils sont prêts à sortir leur financement dans le cadre du partenariat public privé c'est-à-dire du génnee ci alalu askan bi ci saa si donc ça c'est de l'intelligence économique ça c'est des c'est des compétences par exemple je donne un autre exemple maa lay waxu santé def hôpital Parcelles Assainies mu rajo am scanner mais y a des privés locaux et internationaux yoo xamante ne tey boo leen boo ñëwee nga wax ak ñoom dañuy jël seen alal préfinancer une rajo tey bi nga xam ne bu nekkee Pasteloa day génn fay rajo 40 000 ñoom ils vont le faire à 40 à 20 000 francs est-ce que dégg donc c'est-à-dire intelligence économique la ñuy utiliser même une mairie à le droit par exemple le centre de santé par rapport ak budget bi muy gérer mën na dem ci banque mu lebal ko rajo mais yooyu ay xam la parce que pourquoi je suis à d'accord jërëjëf euh, waxtu wi jeex na ñoo ngi lay sant euh, di la gërëm. maa leen di gërëm di nuyu téléspectateurs yi di la remercier Abdou Khadre di remercier waa Rewmi TV directeur bi mais di wax ne waa Parcelles Assainies eh, dama tëkk woon pendant 4 mois mais ñibbisi naa dama ñëw pour apporter le changement. di wax ne nag euh, opposition bi il faut qu'on soit solidaire et toi qu'on soit sincère et honnête. je pense que loolu mooy tax ñu mën a apporter le changement te di wax ne Parcelles Assainies du génn ci Dakar te Dakar restera Dakar. jërëjëf euh, Go Faye mbokk yi mooy coordinateur mouvement réaction euh, nekk ci Parcelles Assainies euh, moom la ñu invité woon tey seen émission réew mi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.